Euh, xam nga day pàcc boo xam ni ñun cantaakon euh, yoon wi euh, Serigne Béthio sunu sang ba daa daa daa fësoon ci màggal da doon jàmbaar da doon koo xam ni bu màggal weeru safar masaana teru dootul nekk sax ñi ko xam dëgg-dëgg danañ xam ni kii nekkatul ngir man ngir waajal gu muy waajal màggal gi loolee nag mel na ni wàll nanu ko ndax boobaak léegi ñu ngi ci euh, nañ ko daan waajale rek lañ ko waajale euh, daaw euh, ci ñetti weer la fekk sunu toogaay bii ci daanaka ci ñaari weer ñetti weer lan ko lan ko waajal te gis ngeen na na na na mu mujjee da defe nañ ko nan ko nan ko bëggee ñu ngi ciy sant sëriñ Touba ren fañu ci toll mooy njëndum nag mi te kon euh, contexte yi tax ñu soppi fu ñu daan jëndee ay nag mhm. Mali lañ daan am habitude di jëndee ay nag waaye ren euh, yëngu-yëngu ya daa tax pour plus de prudence ma ni bokki taalibe yi nañ leen dem Mauritanie ndax foo it sëñ Béthio aada woon na di fa dem ba amoon fa ay wëlëre ci njiitul sëriñ Xaadim sama rak euh, def nañu ab mission ñoo nga fa jënd nañu ay nag ba nag yi tey fii may waxee ak yow moment où je vous parle nag yaa ngi Medina Njaaj bi euh, ñu ngi war a ñëw tuubaa ci guddi gi au plus tard demain nag yi danañu nekk incha allah euh, Touba euh, xam naa bu occasion lay doon pour yéen bu ngeen ñëwee ci ci ubbiteg jumaa ji ñu yegg bu may def réception yi Euh, reception bi ñoo ngeen gisaale ko. waaw loolu nag moom bu ngeen yeggee rek di ngeen ko gis ndax bëgguma fee nekk di avancer ay chiffres sunu sang ba daan na wax naan ab murit du uj bu uj bu

Euh, ginnaaw ma ci waxtaan ak moom ren euh, rassemblement yi noonu ñu ko daan defee danañu bâche nag ci pénc mi ndax euh, màggal gi yoor-yoor bii ren dama ko accès ci njàngum xasida mi ak alxuraan ak bernde danañu jàng ay xasaayit danañu jàng alxuraan ñu bernde loola nag tax na danañu donc ñoom ñooy occupé foofee ñu daan occupé ci biir pénc bi ñoo ñoo koy occupé ren danañu def mbaarum siyaar moo xam ni sëriñ bi euh, defoon na ko mu nekk ci biir kër gi euh, ci mbaar moomu fa ne man pour éviter contact boobu ndekki yooyu ñu daan def habituellement nga xam ne sax ci ginnaaw gi rek lañ ko ci sax integre euh, ren du ñu def loolu ren ci ci danañ ko defee daal nu murite nu amuk taalube ndax ak taalube dafa sew te lu koy yàq daa gaaw Euh, daf cee am mbir yoo xam ni da cee bokkoon te dama ko cee bëgg dindi waaw ah, waaw lépp rek nag ngir jëmale lépp kanam kon euh, ren dana danañu ah, contexte boobu dana tax danañu indi ay ay ay ay modification ca nam daan doxe waaye nag du yàq dara ci bernde yi nga xam ni ñun bernde moo moom moom mooy nga xam ne mooy dëgg-dëggi màggal gi moom luñ ci daan def benn danañ ko ci def lu ko te ren euh, maa ngi leen koy wax fuñ ci tolloon daaw rek toll nañ fu kóob waaw ren moom ren moom da ngeen ci darañ ren moom sëriñ bi dimbali nañu ba lu ñu amoon daaw rek am nañ lu ko ëpp ren loolu nag ak cant la moo tax ma koy wax waaw loolu it danañ ko def foofee ma la wax du doon sax ci bâche ndax bu boobaa dañuy dajaloo waaye am na mbaarum siyaar moo xam ni foofa la ñuy ne respecter distanciation sociale yi ah, ah di siyaarente di di di def sunu cant ak di waxtaane sëriñ bi